di mën a wax rek moo ci nekk maa ngi ko tënk sànq ci tubaab euh, ñun ay dañ fa ñëwoon pour mission yàlla def na ni mission bi def nañ ko biñ ko commencé ak léegi euh, mi ngi nekk juróomi at pour man juróomi at sax boo ko defee fenn ah, ci yoon da nga war a jóg jox keneen ah, li may wax rek ci nekk di ñaanal yàlla ki ma fa wuutu euh, suñu borom aar ko pour mu mën a continuer chantier yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi woon diggante ne diggante bi nag juróomi at yi liñ ci def bari na trop comme ni ma ko waxee ci tubaab tax sànq euh, diggante bi euh, kenn déggu fi pénurie kenn déggu fi coupure électricité ma lay yëgal ni la Sénélec bu courant amee saara tax saar bu ñu téyee fil bu ñu leen di jox courant du am ñëpp xam nañu ay jafe-jafe yi fi amoon man ba may ñëw aussi tamit météo na trop dem nañu ba nga xam ni Sénélec ci boppam li mu yoreel saar ëpp na dayoo dama daan toog sax directeur yi ne leen ni ñu ne ma bu leen jox bu leen jox fiil ma ne leen jox leen leen dinañ ñu loolu yëpp dañ ko def ci euh, liggéey la boo xam ni il faut que nit ñi ràññee ko xam parce que xamuñu lu bari ci ñun li ñu doon liggéey ah yàlla def na aussi diggante bi ñu fa jaaree yëpp tamit euh, macha allah euh, syndicat yi dañu nekk ñoo xam ni tamit dañu xaw a dëgër foofu trop. man dem naa ci ba nga xam ni syndicaliste yi wax dëgg yàlla tise naa ak ñoom ay rapport yoo xam ni euh, wax dëgg yàlla ba ma fay jógee de bërki démb rek ay jooy moo leen dese woon am na ñoo xam ne sax dugg nañ seen bureau di jooy ah mais loolu du dara lu dul euh, cofeel la rek mais li am solo man la ma fa waroon def tamit ña ma fa jàppale jàppale naa leen ah beneen mbir mi aussi production bi ah production bi macha allah tamit euh, daanaka bu daan def benn def nañ ñaar léegi loolu sant Euh, usine bi dañ ko defar pour mu def un million deux cent mille tonnes yàlla def na ni actuellement ci loolu la ñu ne donc ça veut dire que ñi ngi ñaa ngi liggéey grâce aussi parce que management du dara management c'est pas compliqué résultat yi ma def foofu yëpp doomu aadama yi la du man doomu aadama yi la ak équipe yi la ma fa def dama leen mettre dans des conditions yoo xam ni vraiment des conditions yu yu yu baax a baax pour permettre leen ñoom ñu mën a liggéey liggéey ba nga xam ne lañ ko kii am na ci ñoo xam ni ku ci liggéey ah ñu récompenser la résultat yi ñu fa def yëpp maanaam daal ñoom ñoo ko fa def jër jëf